ñeneen ba ci ay mbokku cantaako nag ay man gis naa vidéo yu bari ñuy dal sa kaw. ci maanaam Omaro da daan woy Serigne Saliou seex Cheikh jóge ci dugg ci soo bi saf ci sàpp. doyatul léegi dem na ba jël waali bëgg koo teg ci palaasu ñooña mu daan ko. waaw léegi xam nga li ma lay indil foofu rek mooy. cantaakoon yooyu nga gis ñuy génn ci internet bi di wax mu nuyoo ak mu bari man ñoom ñoo ma waaye ñoom seeni sëriñ yi ñu jébbal bi Cheikh Béthio àdduna seeni sëriñ yi ñu yeeslu. moo xam ci doomi Cheikh Béthio la wala ci soxnay Cheikh Béthio yabuñu ma ndax dama ànd ak seen baay diñ ma ñi mu doonoon seen borom kër ma ak seen borom kër diñ ma ci respect fulla ak fayda ak jom ak bëgg ak jëf ak dëggal sama bopp nag mu metti woon lool ñu tere ñu cant gi ci mbedd yi jàpp sëriñ bi yóbbu ci kaso bi na yi nit tuumaal ko sosol ko ñëpp toog seen kër ñu tere ñu sax takk njiil lii ñu tekki suñu njël ma sama njël dem ci télé bi créé émission cadd gi à 2012 2013 booba ñii wax tey naan Omaro gëmul Cheikh Béthio ak war na Cheikh Béthio fu ñu newoon maa ngi ñoo maase de baa ñu mag ma la ñu newoon moo tax ma ne la ñoom ñoo ma yab waaye ñoom ca ñañ jébbulu yabuñu ma ndax dañu fekkee bi muy metti ñëpp toog ci kër yi man maa génn dem ci télé yi yor drapeau bi yor flambeau bi kenn déggutul cant gi ndax foo tàllali ba san gendarmerie fekk la fa jël yóbbu foo baas ay baas takki rajo na gendarmerie fekk la fa tas ko ndax lan sëriñ baa ngi ci kaso bi ci zaayir nax jin nañ ko de ay nit dañ dee biir këram te moo leen rey te billaahi yëgul tinul barke Cheikh Saliou fa jax jaxate waaye nag jamono ni muy doxee ñu jàpp ne loolee mbir loxo ma nga ci ndax këram la xewe yëf yi amee ni mu amee xewee ni mu xewee ñu tere ñu cant gi interdit tous les cant d'accord bu kenn cant ci ci mbedd ma jël cant gi yóbbu ko ci télé bi émission cant gi en 2013 laa ko dooree LCS ba fii may wax ak yow barki démb laa doon feete 10 ans de carrière cant gi ci weeru koor bi waa gars yi yiy génn ci internet bi naan Omaro gëmul Cheikh Béthio war na Cheikh Béthio lii na Cheikh Béthio laa na Cheikh Béthio waa bi mu méttee fetali génn bi mu méttee liif yi génn bi mu méttee ñu tere ñu takk njël bi mu méttee ñu tere ñu laal suñu basan daara ci mbedd yi Omaro génn dem ci télé bi ne émission cant gi yor cant gi boobu ak fukki at fu gars yi ne woon moo tax mën na la ñoom ñoo ma yab ñoom gone yi cantaaku ni ñàkk fayda yi tekkul dara yi nga xam ne amuñu métier ñoom ñoo ma yab mais ñoom seeni sëriñ ñi jébbalu yabuñu ma ndax xam nañu ma te xam nañu it fi ma jaar ak seen Béthio kon man ñooñu bajo bajo yooyu awma lu may wax jimi ci ñoom